abonné leen tey partagé M Média TV abonné leen tey partagé M Média TV M Média TV waaw waaw man de yéen laay wayal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 وادعه وليلي إذا ما وادعك ربك وما خلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يؤتيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي وجدك دانا فعبي وجدك عينا فأخلي الله أكبر سمع الله لمن أمده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 salaamaaleykum wa rahmatulah. téléspectateur u M-Media mbokk internet u M-Media TV ñi am kontaan bu baax di delluwaat si bi di M-Media TV di leen nuyu di leen. Euh, bégee bu baax a baax comme ni ngeen ko gisee amal nañu li nga xam 2024 fi nga xam ne ci barab ñu koy defee fii ci diwaanu ñu tuddee ko Daxaar ginnaaw bi ngeen assisté julli gi ñu dugg ci li nga interview yi ci loolu aussi tamit ñu profité ci occasion bi di leen baalu ak di leen baal ak aussi tamit di ñaan yàlla baal di ñaan yàlla également aussi tamit mu nangul ñu jaaroon ko ci mag yu tedd ci ak sama caméraman mu topp ñu bu ko defee amal li xam ne moo interview bi jëm ci li nga xam ne moo di julli gi. maa ngi leen nuyu leen baal àq leen baal àq di ñaanal at mi ñu nekk dal na delsi bu fekkee potital ko koo bi jàmm yàlla yàlla saa borom ba nangu te fuleel na di teg di caamen gépp ak diwaanu caamen gépp commune cinquante sept villages yi nekk yëpp kenn ku dama lay baalu àq di baalu ak taanu sant di sant ñëpp di gërëm ñëpp góor ak jigéen di wax ne yàlla na yàlla may fan gudd ak wér ak wérle fekk ak tal di wax ne képp xam ne kii ngi fi rek ñu fi jaamu yàlla yàlla ko saa borom ba te ñun ma ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuma kenn kenn kenn ki yàlla teg ci réew mi yàlla defal jàmm mu toog ak jàmm tawaay bi sedd guy te liggéey liggéey bi am solo voilà te amoon na ma ci sànni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa nu yooyu ñoo bëggoon la laaj gis nga béréb yi boo yàgg nañ fee amal li nga xam ne moo di julli muy korite wala muy tabaski saa su ne fii lañ koy amalee euh, mais dafa mel ni euh, béréb bi laajaan na yeneen euh, matuwaay yoo xam ne war nañ ko jël tey boo xoolee imaam ñoom fi ñu taxaw nga xam ne macha allah naaj bi dafa leen fi kii léegi est ce que réalisation yoo xam ne war nga koo mën a jëmmal ci sa nguur laata changement yoo xam ne war nañ ko fee amal. waaw incha allah ci dogal yàlla ni dogalam su fekkee ne yàlla teg na ko samay loxo yaa ko jëmmal defar ko man maa koy dagaan yàlla ak pexe ko yàlla dogalee daal fi mu am di taxaw soobee yàlla mën naa ko jëmmal ba mu ker bu neexee yàlla wallaahi man la ma ci gis nañ ne tamit euh, Adja génn nañ ci li nga xam ne moo di ay élection yala daf ñu changé beneen njiitu réew euh, ki nga ki nga àndaloon yàlla def na ñu euh, fii ren yéen ngeen ngeen fas a dellu ci li xam ne moo di opposition bi nan ngeen ko nar a dundee. sant yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur fi mu na ko yàlla fam jëm yàlla fa jóge yàlla jëm ku toog yàlla na ko yàlla sarara réew mi ba mu set bu guy mu liggéey ci liggéey bu ma set bu ñëpp teg bët yàlla man na ko yàlla am na ko place bi yàlla na ko jub ndax mooy àddina élection yi jëm nag comme egg guma ca du ma ci am gun lu ma ci wax bata ma ca egg nit ñaan yàlla fekke ko ak tal ko bu ko fekkee tal boobaa ñu doog a xam lu ñuy def soobee yàlla. ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu suñu kilifa di nuyu mboolem julli nag di nuyu képp képp koo xamante ne nii hmm. maanaam julli la rek ñu ngi koy jox suñu loxo xol di ko nuyu di ko ziar di ko baalu xaq. jërëjëf Oustaz si kàddu yooyu mu mel ni ci weeru koor la ñuy jógee ku wax weeru koor wax sellal ak ngëneel li ci nekk yëpp euh, ginaaw bi ñu ci jógee euh, ban message ngay conseillé julli bi nga xam ne génn na ci weeru korite wi ak lan yan moo ko ci mën a fekk. waaw dañuy tudde ne maanaam li nga xam ne mooy weeru koor. Hmm. camp d'entraînement la. Hmm. maanaam da nga nekk loo xamante ni dañ koo def pour la nit ki di ñu ko ci former pour bu ci jugee li nga xam ne mooy fukki weer yi yi ci des yëpp mu war a koo xamante ni lam ci jële woon ci sellam ak ci yiwam mu fexe koo taxawee nga xamante ne nii ragal yàlla gi nga ci war a jëlee tey euh, na ci na façon yi mën na ba mën na wuute waaye itam li nga xam ne moom lañ ci soxla mooy décorer benn diplôme boo xam ne moom la ñuy wax diplôme ragal yàlla te ragal yàlla mooy bàyyi xel yàlla nga xamante ni boo ci jugee dina am loo xam ne sañoon nga ko daa nga ko def waaye tey sañatoo ko ñemeetoo ko ngir lan sellal gi nga jugee woon kooku daf laa topp bu fekkee ne topp la rek ne li nga doon def euh, zéro la ndax itam amatul njëriñ. kon daal maanaam mu mel ni ko war buñ ci génnee jullit bi dafa war a amaat beneen comportement. waaw dafa mel ni maam loo xamante daf la doon raxas daf la doon yiwal maam mboolem nga jéggalu ko waaye nga fexe ba doo ci delluwaat nga sa sellte gën a yokk sa xol gën a sell mm-hmm. nga fexe ba nga xam ne da nga yéene ñëpp jàmm waaye fexe ba la képp koo xam dafa woor ba pare bàyyiwul waxi caaxaan bàyyiwul di fi jaaxaan dafa mel ni koor ga xiif mar dong la ci am mm-hmm. nga fexe ba lépp looy defati nag mu nekk loo xamante ne nii mm-hmm. maam yiw nga cee am ak mbaax waaye itam bañ caa am lu dul ragal yàlla lépp looy def rek ci ndax itam ragal yàlla liñ naan ragal yàlla ragal yàlla mooy bàyyi xel yàlla nga yëg ne ku la gisut budul kenn itam ki nga xamante ni mooy kenn ki mu ngi lay gis mm. waaye itam bu fekkente ne li ngay def dafa nekk loo xamante ne ni mën nga ko def te kenn du ko yëg mm. maanaam dem na ba nga xamante ne ni mën nga ko feeñal ci image nit ñi jàpp ne li ne ci yow mm. lu jubla lu baax fekk ne yiwadi ak ak ak mbon moo moom nga ëmb sa xol la ca nekk yëgal ne am na koo xam ne yëg na ko su ko defee nga bàyyi xel yàlla ci li ngay def bu ko defee lépp nga julli ko ngir lan sellal sa xol ngir am li nga xamante ni a jote bu ñu bu ñu ne koor gis nañ ne jeunes xam ne mooy di wóori koor di maanaam euh, te bu weeru koor bi jàllee ñu mel ni dañu delluwaat ci leneen li ñu lan nga leen ciy conseil waaw loolu ñàkk xam la waaye ku xam dëgg-dëgg da nga war a xam ne profité la fekk na ma fi wóoru dana ma fekkaanab déet bu ma fexee ba yulli mbooleem li nga xam ne moo nekkoon ci man mm-hmm. ci ci lu ñaaw ci lu bon naa fexe ba bu ma duyaat kon sellal gi nga xamante ni am naa ko muy occasion boo xamante ni mm-hmm. ji góorgóorlu naa ba def ko ci weeru koor bi naa fexe ba continuer ko mm-hmm. loolu mooy wane ne sa koor nangu na mm-hmm. loolu mooy wane ne li nga xamante ni soxla woon nañ ko ci yow mooy bàyyi xel yàlla bi ci loo nekkati rek da cay feeñ waaye koo jëflante rek da cay feeñ triant bi nga namoon bi nga daan bi nga daan bi nga daan doxe ba nga ko wax lu dëgg bi nga daan def ba nga ko iñaan bi nga nekkoon ba nga ko jëf ju sew ji nga nekkoon ba nga ko nga gis ne lépp lu ma doon def rek ci lu ñaaw lu safaanoo teg naa ko ci suuf ngir borom bi subhaanahu wa taala bu ko nit ñi xamul sama xol yëg naa ne loolu rek moo ci nekk kon daal li mooy li nga xamante ni war nañ ko jëlee ci li nga xam ne moom mooy chehru ramadan mubarak jërëjëf Oustaz sa kàddu gu mujj sama kàddu gu mujj mooy ah bu ñu tabax ci weer yàq ko ci benn bis ndax bari na ñoo xam ne dañuy góor góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu bu ñëwee benn bis bi ñu tinki ko waat def yoo xamante ci benn bis bi rek ñu mën cee toj lañ tabaxoon yëpp loolu nag nit ki da jullit bi daf koy war a daw jullit bi dafa war a am occasion boo xam ne boo ko xasee ba am fexe na occasion bi ratewu ko na fexe ba bu ko bu mu ko yàqaat kon daal li ñuy wax kenn ku nekk di ko wax suñu bopp mooy ñu fexe ba li ñu li ñu li tënkoon ci ci weeru koor bi na mm-hmm. nañu fexe ba bu mu ñu tinkiwaat ci li nga xamante ni moom mooy bu koor gi jàllee muy bàyyi xel yàlla ci lépp lu ñu def kon ñu ngi leen di sant waa M-Media TV di leen gërëm macha allah seen taxawaay rafet na mm-hmm. di sant mboole yëpp ki nga xamante ni mooy kilifa yi nga xam ne dañu bokk liggéey bi mm-hmm. tabaarakallaa azatis yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, tabaarakallaa ci ah, kilifa yi dëkk bi di jégalu ñëpp di baalu xaq ñëpp wasalaamu si kàddu yu am solo yooyu wa tarfawna bihi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jumlatil khayrat wilayati wa ba'da al mamat innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir اللهم انت امرتنا بدعائك واتنا باجابتك وخدعناك ما امرتنا وجبناك ما وعدتنا به يا ذا الجلال والاكرام انك على كل شيء قدير اللهم فرج أمم المؤمنين قل قلاس المكيولين أسر الماسورين ودم على عزاة المسلمين ووسع على عبادك المقيمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وعامل بفضلك وعاملنا بفضلك ولا تعاملنا بهزك وأعطي جماعتنا جميع المؤمنين أعدائه وتوفيقك إياكم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين وجل عسل بلد آمنا منحنا يأتيه رزقها رخدا من كل مكان أقنع كيد نفسي والأرى وجل بل دار الحجر والإسلام وظاهر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام ونمد إليك ربنا أقبل عملنا متواصلين بجاه نبينا به وآله أن تعبد حاول آلنا إلى أسنى الأرض والحال وأن تبعد جميع نسل بنا أحوال وفر لنا وفر لوالدينا ولوالديه